voilà de retour sur le plateau ah seen plateau matinal plus ah ñu wéyal rek comme première partie bi dañoo ak ñi nga xam ne mooy le grand journaliste Modou Moustapha moom le grand célébat wala le marié gars yi ñoo bañ doon mais man moom marié du ma ko gëm tant que gis ma ay preuve man loolu laa mel Moustapha na preuve yi ñëw voilà dañuy accompagné suñu deuxième partie vraiment ak ki nga xam ne mooy benn responsable politique hmm. damay bàyyi ki nga xam ne mooy suñu coordinateur Ousmane Sock moom mooy dugal suñu invité mais nag moom fu mu jaar yoon loo wax noonu la ah comme que Diop nga sax plateau bi yaay borom ah micro yi yaay borom temple yaay borom sopp baam baale nga nga nga ñu sa sa invité tey. voilà donc Modou merci beaucoup donc nuyu bu baax baax Temple TV yëpp. que j' que aussi émission ñu daw en YouTube si si sama tombe pas. donc Ibrahima aussi loolu bàyyi ko xel. donc di wax ni tey ñu ngi am comme invité donc nekk responsable politique fii ci commune de Nondiol-Niaga en même temps aussi nekkaale ki li nga xamante coalizão moom mooy coordonnateur euh, communal li nga xamante que o mooy coalition Allo 2024. kon donc daj balaa ñuy dugg ci question li nga xam ne moom mooy laaj yi dañ koy bàyyi moom li nga xamante ni moom mooy euh, suñu garu tey mu mu nuyoo ko téléspectateur waaw auzu ah, billaahi mina é o bismillaahi rahmaani o maa ngi nuyu ñu ci plateau bi ñëpp ci commencé Ousmane Euh, sama rak sama dëkkandoo di wax dëgg yàlla di koo xamante ni dama ko sopp naw ko ngir euh, gëm-gëmam ak euh, njàmbaarteem fii ci commune bi di di doxal lépp loo xamante ni bi intérêt commune bi la rek soo demee di ko fa fekk di la nuyu yow Modou di nuyu sama xarit bi boroom piliver bu bula bi xam naa bii daf ma koy jox ma yóbbaale ko <laughs> <laughs> sëñ Ousmane sëñ <laughs> Ousmane uh-huh. vraiment di kontaan bu baax di wax ni kër gi moom sama kër la waaw nekkul ne tey laa fi ma sa ñëw vraiment di sàkku ñu am émission bu neex boo xamante ni bi ñiy seetaan dinañ ci mën a jariñu ñu wax loo xamante ni bi aussi luy jëriñ commune bi la luy jëriñ également Sénégal gépp la allah waaw donc noonu mhm. xam naa ni sax commune bi après dinañ ci laal mhm. parce que bu ñàkk moom tamit moom si gis-gis taxawaay bi nga xam ne bi nga ko si am mhm. nañ commencé au niveau national parce démb dañ ko fal li nga xamante ni moom mooy lu ma lu ma ma tàmbalee sànq coordinateur euh, communal li nga xamante moom mooy coalition Alioune 2024 Habib lan moo tax parmi des milliers de personnes ñu tànn la yow waaw loolu di sant yàlla rek di sant yàlla di sant suñu président Aly Ngouille di wax ne toujours dama koy ñaanal wér ak wérle parce que xam naa ne bu wéree wérle yàlla may ko fan bu gudd euh, dinañ gis taxawaayam ci Sénégal donte am na lu luñ ci jot a gis mais am na lu des di ko ñaanal yàlla 2024 bi ñu teg ko ci bopp réew mi su boobaa dinañ xam kan mooy Aly Ngouille dinañ xam lan mooy yéeneem ci Sénégal parce que ñun ñi nekk ak moom di tëdd ak moom di yeewoondoo ak moom di xëy ak moom di gont ak moom ñun xam na lañ lañ ko toppee parce que boo dee xool comme li nga wax milliers de ñu ngi ci biir Sénégal mais dañ ko tànn ci biir nit ñi def ko muy suñu idole di suñu royukaay def ko muy suñu baay ci wàllu politique parce que gis nañ ni politique bu raar moom lay politiquer ci ci ci as ci jamono ji ñu toll nii muy politique boo xam ne doo saaga doo xaste doo wax lu ñaaw te loo wax fas yéene nga koo def wax mu am nag yàlla moo ko yeyoo waaye lu mu wax rek fas yéene na koo def te gisañu gisaguñ dara ñu génnal ko fi vaar li tax nag euh, ñu tànn ma def ma mooy coordinateur communal bu Tivaouane Peulh euh, dama ci sant yàlla waaye damay jàpp ne lu ma méritoo la parce que man aali laa xam mooy sama papa mooy sama lépp ma nekk euh, nit ku fidèle ci moom ma jël bàyyoo ko mu doomooma kon su choisiré def ma may coordonné fii ci commune bi sant yàlla la waaw coordonné nag taxul nga yilif ñëpp mais fédéral la ak euh, tàllal ñëpp suñu loxo ñu ñëw jàppale président Aly Ngouille mu jël ndam li 2024 incha allah rabbi dès le 25 euh, euh, février yàlla dugal ko ci biir palais bi. balaa maa jox gars parole bi donc même aussi mu ne yoraale li nga xamante ni section féminine bokkaale section tey aussi loolu ban commentaire nga xamante ni moom nga ci moom nga ciy def. waaw di wax ne Oumy moom Tivaouane Peulh duñ ko présenté kenn. conseillère municipal la xam nañ euh, njàmbaarteem fii ci commune bi yaakaar naa ñi ko soxla woon fii ci commune bi bëri na ñi ko soxla woon au niveau national ci candidat yi bëri na mais mu ne moom Aly Ngouille lay safoo moom lay bëggee bëggal ko boppam jël ay engagement am total kenn campagne ñu ko kenn propagande ko moom moo ñëwal boppam na day jàppale Aly kon bu ñu soxlaa jeune fii boo xamante ni bu engagé wu lay doon ma gis ko fii ci commune bi dinaa demander suñu délégué département ne ko mu dugalal ma ko foofu waaw ba yàlla def na ñu sant ma leen di sant tamit ci accepté bi ñu accepté loolu parce que tamit loolu sama doole la fii ci commune bi parce que yëpp ñëpp xam nañ commune bi Benno Bokk Yaakaar daf fi am doole kon su ma fi ma amee ku mel ni Oumy Diatta kon yaakaar naa ni dina dina dina ma mën a dina dina ma mën a jàppale ci lu bari daal. bu ñëpp xam daal donc balaa maa jox gaay moom donc balaa booy defal benn benn cérémonie parce que ñun ñoo ñun ñoo bokk dëkk hmm. te vraiment nit moom boo ko xamalee lu baax war nga ko mën a waxal quoi suñu koñ hmm. Euh, boo ñëwee ba ci moom këram ba ci mbedd bi yëpp lamp yi fa nekkoon di tàkk yëpp moom ah, ko neexoon ñu may ko ay lamp mu jël ko ko këram koñam hmm. da ko ba nga ni fu waay romb dina leer ko loolu aussi euh, dañ ko na mënoon na ko bañ a ah. ñi nga xam ne ñii fii di politique te xalaatuñu moom bu ko xalaatee ba def ko yaakaar naa ne dañ ko ci remercier bu baax a baax a baax moom xam naa ne damay jox gars yi kàddu bi xam naa après hmm. moom dina ñëw ci li nga xamante ni moom mooy tirage parrainage parce que Aly Ngouille Ndiaye lañ ko war a analyser quatorze heures aussi suñu tournée bi nga xamante ni ñu ngi koy def au niveau au niveau de la surtout ça en tout cas Diop man moom dama lay remercier ci acte bi nga xam ni danga ko danga ko sa koñ te je pense que aussi nit ñi ñu ngi lay suivre te wax dëgg fa yàlla bu ñu gisee aussi benn nit buy buy def loolu wax dëgg fa yàlla dañ koy dañ koy remercier bu baax a baax a baax a baax parce que bu ñëpp defoon noonu tey koñ yëpp leer na tey koñ boo dem am na benn mën naa ne benn autorité bu fa nekk boo xam ne war na mën a jàppale waa koñ bi wala nga def mention spéciale mais nag débat bi war a neex jóg. waaw maa ngi leen di xaar débat bi war a neex de voilà damay bàyyi sama sama gars yi doon naa moom aussi du ñaax benn question bu mu la bu la bëgg a laaj. donc merci. Mm-hmm. Mm-hmm. di jaajëfalaat waa plateau bi rek. Mm-hmm. di dalal aussi ki nga xam ne moom mooy suñu invité. Habib yaakaar naa ne moom aussi nekkul kan ci li nga xam ne mooy kër gi. wax na ko sànq ci ay waxam maa ngi koy nuyu di ko souhaiter aussi Euh, incha euh, allah euh, yaakaaruma ko nag yaakaaruma parce que moom dafa nekk nit koo xamante ne bii nit too am de parole la. man li ma xam ci moom mooy nit ku sincère nit koo xamante ni bi du wax lu mu gëmul du ko def te jàpp naa ne sénégalais yi ñoo gisé ah, bu neexee yàlla fi ak dix sa fii ak dinañ xam dara ci wàllu parrainage bi ñu xam ne sénégalais yi jox nañ ko bopp li koy firndeel mooy président Aly Ngouille ay parrainage am génnewul fenn dem wuti ko nit ñi ñooy ñëw di ko fekk ci këram di ko fekk siège ba di ko jox ay seeni parrainage te jàpp naa ne bu nekkoon ne day def ba pare di ko regretter kon du génn parce que yaakaar naa benn bokk yaakaar occupé mm, na fa ay poste yoo xamante ni bi tey ji lu mu fa laajoon wala lu mu bëggoon rek da ko fay am kon su jëlee décision génn rek parce que xam na lu tax mu génn te yaakaar naa njariñu Sénégal moo tax mu génn pas interpersonnel am parce que bu fekkoon interpersonnel am la rek kon foofu lay toog te yaakaar naa ko mel ne Ali bu génnee ci benn bokk yaakaar dinañ wax ni au minimum 40 pour cent yi génn ci benn bokk yaakaar ba fii may wax ne jàpp naa ni moom regretté wu ci dara parce que mi ngi ay tournée mi ngi ci liggéeyam. waaw parce que bul fàtte ni euh, président Aly Ngouille nekkoon ministre de l' intérieur te ministre de l' intérieur te 2019 ak léegi yàggul. Hmm. bi mu quitté ci ministère bi yàggul ta euh, ministre de l'intérieur li mu xam ku jaaru ministre de l'intérieur du ko xam tey ji président Macky Sall li ko may sens mooy jaar na ministre de l'intérieur mais bu fa jaaru woon tey ji li aali xam ci réew mi du ko xam ministre de l'intérieur renseignements généraux yépp da koy am fichier bi da koy am lépp loo xamante ni bii tey jii ki nga xamante ni bii moo nekk niveau ministre de l'intérieur bi li mu am aali daf koy am parce que dara changé gu fi d'ailleurs li koy waral mooy parrainage bi ñu fi indi euh, moom moo moom jamono bi ñu koy indi moom moo ko fi def kon xam na lan mooy parrainage parce que tey jii moom moo ko adopté moom loi yëpp moo doon dem assemblée moo doon ñëw ba yàlla def ñu indi parrainage bi kon loolu yaakaar naa loolu dara du ko ci war a jaaxal. waaw d'accord xam nga moom li mu wax yàgg na koy wax man tamit ku fi ku may suivre ci samay ci samay émission man euh, dama créé ben mouvement mouvement le réveil citoyen 2017 tudé ko Alim Ngouille Ndiaye 2024 suñu président mi ngi recevoir 2018 en ministre de l'Intérieur. intérieur bi ma mu rencontre ma dama né ko man anduma ak yow pour ay ministre dama ànd ak yow pour 2024 nga jël réew mi incha rabbi mu reetaan ne ma bu ko yalla dogal yalla nako ko def te man gëm-gëm googu am te képp kuma xam au niveau national man dama doon campagne waaw parce que loolu laa gëmoon parce que gëmoon naa ni Aly Ngouille du wax du delti ginnaaw te bi muy ànd ak président Macky Sall waxante woon nañ loo xamante ni bu lu leer la mooy naka dañuy ànd ba 2000 ba 2024 nga jeexal ba président Macky Sall accepté woon loolu mu ànd ak moom loolu ci loolu te jàppoon naa ni Aly Ngouille amoon na fulla ju toll ni bu 2024 dina samp ndëndam waaw parce que même 2012 moom dafa bëggoon a nekk candidat mais ci la waxtaan ak président Macky Sall mu convaincre ko aussi mu doy ko comme li mu wax mu dem ànd ak moom mais na président Macky Sall man doo ma tànnal ki may tànn dama laa xooloon nga doy ma tànn la kon man keneen ki may tànn maa koy xool ba mu doy ma te boppam moo ko doy yaakaar naa loolu moo tax mu génn. bër bi nekk ci ginnaaw àll yooyu yëpp ak ak ak ak ak ak borom jamaa bi sama mm-hmm. mbokku jëwén boobu tamit mm-hmm. ah boobu tamit war na war boobu tamit war na si ñëw de parce que jamaa yi yéen porte nañ presque ci ay génnaat mm-hmm. ah, waaw mais pourquoi soit àll ah, waaw d' accord xam naa li tax nga laaj ma ko mooy parce que yàggoo ma topp moo tax uh-huh. mais ñi ma yàgg a topp ci politique xam nañ ne Ali sama papa la Ali mook sama papa ay wóola la rëñ ay wóora la rëñ ay xarit lañu woon man loolu sama yoon nekku ci woon sax seen diggante ñoom ñaar mais sama diggante ak Ali du ma tàyyi di ko wax mi ngi commencé bi sama papa génne àdduna mu ñëw taxaw ko comme doomam man li ma waroon a def en tant que taawam Ali taxaw def ko yóbbu ko ci jumaa ji jëndal ko nag saraxal ko parce que boobu maa ngi dëkk Touba suñ kër yi ñoo jàkkaarloo kon kooku amatuma njëkk amatuma fayam ci àdduna léegi la nii rek mais su ma daan wax ak moom damay jooy na moom xam na li may wax xam naa ni su ma amee lien bi dina ko dina seetaan émission bi euh, moom xam na li may wax léegi nii rek laa commencé di kii maanaam mu même daaw ma wax ak moom message rek la ñuy wax ndax mu tolloon ma foo xamante ni bii euh, seddoon na sama xol trop parce que jamono yooyu mën naa am sama loxo joto sama ginnaaw li mu war a def ak sama papa mu def ko kon kooku du ma ko yemale kenn ci àdduna loolu moo tax ma topp Aly Ngoye waaw di ànd ak moom sans. dara. Mourou bala ngaa jox bala moo bala moo perte fil bi nii parce que dafa am solo la topp nga ko ci affaire jamaa ah, yi. boo ko nee. soog nag sa invité jamaa yow boo xoolee. seet seet su Aliou bu ñu na plainte mais dafa def acte bu héroïque yaakaar naa ne keroog maa ngay wax te moom toogu ci. waaw c' est mooy euh, porté naa plainte mais damay ba élection yi jàll hmm. ko neexoon du hmm. la man may hmm. moom man moom wax dëgg yàlla bi ma ko déggee man personnellement góomu ko parce que ay dama koo xam dama ko xam bu baax parce que man tamit ci nit laay ànd ak moom ci ngëm-ngëm laay ànd moom man du ma ànd ak moom ci mbambax du ma ànd ak moom ci dara su defee lu mu gëmul dama naa ko président lii gëwuma ko su jëlee ay décision yoo xamante ne bi ànduma ci dama naan ànduma ci man maa ngi nii tele laay wax waaw mais bi ma ko déggee tamit gëwuma ko parce que xam nga la moo tax gëwuma ko personnellement man dama koo xam man day nekk ministère ma ñëw am lu ma fa bëgg mu xaañ ma ko te mu wóor ne ma bu doon yeneen ministère yi demee ñu defal ko guddeeg bëccëg ñuy nekk wóorumaa soxla benn ci ministère boo xam ne day ñëw rek signé ma jot ci ma dem mu ne ma noono demal jaar fi nga a jaar wala noonu waru ko am kon kooku bu ko jiiñee leneen man dina ma jaaxal te mu wóor na ma ni personnellement moom bu yoroon 10 millions ci poosam ma soxla ko man mu jox ma ko wala lancim barke Seydina Mohamed te la laay wax kon bu soxlaa bu ma soxlaa dara ci état bi ma ñëw mu xañ ma ko ëllëg ñu koy jiiñ dara dina ma jaaxal lool waaw te xam ne la ma koy laaj fële mu di ma ko jox ci poosam mu ëpp fuuf li ma koy laaj fii ci ministère bi mu xañ ma ko ne ma lii nii lay demee nii nii nii nii ba ci fi may li ma mën a wax mu leer franc grand ci tracteur yi nga xamante ni bi président Macky Sall da ko joxoon agriculture man dama nekkoon ndar di béy ku doon seetaan sama statut yaa ngi ma doon gis ci tool yi tracteur presque li ma ci fay mat na 3 millions 500 ay location te moo doon joxe tracteur yi. Ah waaw. te moom moo nekk te moom nga àndaloon. tey tey yow da nga doon journée bu ma xëy liggéey ci tool yi envoyé naa ko. avant may dem ci tool yi envoyé ak ko bu leen neexee ngeen dagg ko ci réseaux sociaux yi may wax mi ngi jàkkaarloog man di ko wax moo doon joxe tracteur yi te dama doon luyee tracteur wallaay lancim doon luyee tracteur te moo doon joxe tracteur yi aw ma ci parce que mën naa am waruma cee am wala am na ñu ma jiitu amaguñ kon kooku nga xam ne ku fi dal te teewut ba ba ñu paree ba ma soxlaa sama ba soxlaa xaalis man personnellement damaa dem laaj ko mu dimbali ma la ma mën a dimbalee ci poosam te amaana boo demoon ci yeneen ministères yi wax dëgg yàlla ak ni ma mel ak moom ak ni may sonne ci moom day daal di signé jox ma te xam ne intérêt am la day ñëwaat ci moom kon du def lu mu gëmul kon bu musaa jóob taxawee di ko tuumaal lu mel noonu euh, mu mu mu moom li mu wax nee na tey bu Moussa Diop weddi woon seetal dara moom mu mu mu retiré pelantam kon kooku bëggu ci dara bari ki démb dafa nekk États-Unis euh, ci Tunkara mi nga xam ne dafa nekk ci Sonko euh, booy dalal ko ñuy waxtaan ak ñoom mu ne leen lépp loo xamante ni bi 2012 ba léegi am ngeen ko lu mën maa rapproché ci dara. teg leen ko ci taabal ji ñu waxtaane ko mais yaakaar naa waxtaan bu mujj nañ ñoom ci seen bopp jox nañ ko loxo te boo demee li may wax ni mi ngi ci réseaux sociaux yi boo ci duggee moom ak euh, tournée bi muy def États-Unis ba léegi ni ma nga fa ma koy ñaanal yàlla yàlla may ko ci ndam. waaw maa ngi ziare Diop bu baax waxtaan bi am na solo trop et franchement seede yi mu def ci Aly Ngouille Ndiaye euh, seede yu rafet la ça prouve que ni xam na Aly Ngouille Ndiaye parce que si politiquement man dama gëm nit moom foog xam xam ban jikko la xam comportement la nga doog a mën a jaay parce que politique produit ngay jaay rek sa candidat bu dee xamoo ko mënoo seede yii ci moom loolu du am sens mais man la question ko j'aimerais poser mooy Aliou Ndiaye candidature am bii bu fekkoon togg na ko bu yàgg lan moo tax mu bàyyi ba 2023 ba daanaka ba ñëpp xam ni Macky Sall dematul te maanaam moins de 6 mois ñu doog a xam ni Aliou Ndiaye dafay dem laaj réew mi génn ci coalition bu mag nga xam ne mooy benn mbokk yaakaar. alors que ñom biñ bolo won sax gis nañ opposition bu instant yi mu leen sonal ndax biñ démé ci législative gis ngeen opposition biñ ñëwé ci kaw ci kaw coalition bu di benn ko yakkar légui est ce que moom kese bu gémé en solo est ce que yéen am ngeen yakkar ni ari Ngouille ñay li muy ni nii dina ci jot su fekkee waaw ci yeen argument nga koy tek wala da ari Ngouille ñay daam dal wala bok ari Ngouille ñay dafa def ni yeen candidat def rek génn xaacu dajale sa mbolo pour après nga bokkaat ci gouvernement bi nek premier ministre wala dara waaw d' accord maa ngi lay sant sëñ Ousmane dama lay wax maanaam li nga xamante ni bii moom moo waral loolu ah, Aly Ngouille Ndiaye dafa xamante ak Macky Sall 2012 yaakaar na moom Macky Sall waxuñu rek ku nekk dem Réveil lañ tasee woon bi ñu tasee Réveil ñu waxante ñoom ñaar Aly ne ko man damaa bëgg ñu ànd 12 ans ñu liggéey Sénégal liggéey commune bi ma nekk muy commune Linguère pratiquement département Linguère. Macky Sall ànd ci ak moom mu invité ko réveil ñu bind ñoom ñaar ku ñu signé ku ne yor kayit loolu Aly Ngouille Ndiaye wax na ko ci télé bi yaakaar naa ne kayit bi mi ngi ak moom. bi nga xamante ni bii organiser na élection 2019 ba yàlla def ñu Macky Sall gagné premier tour gouvernement bi ci topp Aly Ngouille boo ko ci man personnellement bi may dem këram maa ngi ànd ak 19 jeunes ak ay fii bi ma demee keroog yuuxu sax def naa ko ci kër gi di wax di nit ak fëggoom ak tofeel gi am ci nit ki. ma ko lu né wax na ko traité na ko président Macky Sall ñima andalon tamit c'est la même chose ki li la ki li la ki nangam nangam wax wax yo xam yu doy wal biñu paré paree mu ma abibu man ànduma won président Macky Sall pour ma fal ma ministre man bi ma falé ministre daf ma bét dama àndoon nak mom pour ñu défar Sénégal ak pratiquement département Linguère surtout commune Linguère man lool la waxanté won ak mom kon bi ñu demee mu fal ma ministre loolu lu ma bett lay doon su ma wàccee ñaata million sénégalais moo fi nekk man kese man naa am munuma lépp wàcce na ma xëy na gis na ku ma ëpp compétence mu teg ko fa su yàlla defee ma war a demaat dinaa dem li ma bëgg mooy ngeen continuer ngeen dem liggéey te bëgguma dégg kenn kuy wax lu jëm ci président Macky Sall lu juge ci man surtout yow Habib parce que yow boo waxee day mel na man maa wax parce que ñëpp xam nañ sama diggante ak yow ñëpp xam nañ sama complicité ak yow man moom wax lii jour boobu ah. bi ma waxee loolu tamit ma xam ne kii nit la ma delluwaat ma nekkoon continuer sama liggéey mais ci biir wax newoon naa la man sama liggéey mi ngi nekkoon comme ma def ko candidat 2024 ci loolu laa doon dox bi mu demee nag bi nga xamante bi contrat bi jeex na libre na parce que li ma la wax ci honnêteté am ak dëggoom su ko neexoon day génn en 2019 ñu bëri loolu lañ ko sollicité woon suñu mbokk yeeg mbokkam yeeg ñëpp nit jàmbur yàlla sax dañ ko wax na génn dem partem mais mu ne comme waxoon na Macky Sall damay ànd yow liggéey Sénégal ba ba ma doog a génn kon du ma ko bàyyi mukk te 2012 génnut loolu moo taxoon te teewut même bi ko Macky Sall wàccee mi ngi liggéey ak président Macky Sall parce que dañuy toog mu ne ma président mi ngi may laaj sama xalaat maa ngi ko koy wax jeex na kon maa ngi liggéey donte joxuma poste aussi loolu may def tamit bu ma gisee loo xamante ni njëriñu Sénégal la dama koy envoyé message ne ko président defal lii defal lii man loolu moo ma ko personnellement kon ma xam ne kooku nit ku dëggu la nit ku gëm li mu ne bi mu demee nag bu président Macky Sall woote ne moom bàyyi na day jeexal mu ne contrat am ak président Sall jeex na léegi day laaj baatu askan wi Sénégal yi nag ñooy gisé génn tey ak génn suba ñoom ñooy xool ki nekk ci gën ci ñoom wala ñu xool ki ñu bëgg président Macky Sall président Aly Ngouille day laaj base organique yàlla na ko yàlla jox 2024 moom def na li ko war sénégalais yi ñoo ci des. bu ñu ko voteele hmm? non am na ñoo xamante ne bii mosuñu nekk ci parti politique kenn xamu leen. dañuy dañuy xëy dañuy xëy rek waaw d' accord waaw d' mais président Macky Sall président Macky Sall bi muy génn ci ab Ablaye Wade dans deux ans la wala un an et quelque d' accord kon kii bu demee ba jeexal mu génn. dëgg la yéex na génn mais nit ku nekk day am lu la tënk comme moom amoon na contrat ak président Macky Sall mënul woon génn parce que man mii doon naa posté Aly Ngouille Ndiaye 2024 ci réseaux sociaux yi mais dafa ma woo personnellement vingt 22h ni ma li ngay posté bàyyi ko dama waxanteeg sama nawle dama waxanteeg sama sama mbokk góor te bëgguma mu deñ te yow loo def day mel ne maa ko wax bàyyi leen ba président Macky Sall wax ba voilà mooy li ma wax parce que amul comme xas naa waxanteeg moom waxi góor ba pare rek amatul def dara lu topp ci ginnaaw Macky Sall ba ba Macky Sall pare. waaw mais non moom est-ce que xam naa bi da doon ma ne la moom 2012. dafa waroon nekk candidat président Macky Sall moo tax mu bàyyi candidature am topp ko. te waxoon na ko nit sama ànd ak yow 2012 la yem. mais su fekkee 2024 la yem. Diop. Mhm. sa candidat su fekkee ne mhm. dëgg. Mhm. su fekkee ni yow mbir mi bokkutoo ci. da ngay teel ñun ñëpp kañ lañ xam ne Aliou Ndiaye bokk mooy bi bokk ma. waaw man de man per frustration trop. waaw man dama gëm ni sax ni. bu président Macky Sall dem moom lay tànn. mu bokk fi dem tànn Amadou Ba mu frustré wu génn. déedéet moom Mamboy Diaw xam nga man xam nga man xam nga man du ma wax du la wax loo xam ne dama koy far ci mbedd mi man dama naa la président Ali moo wax lii président Ali dama naa la moo wax lii président Ali Nguy dane président Macky Sall 2024 la sama diggante ak yow di yem kon warul génn bu génnee rek war na président Macky Sall. président Macky Sall bi nga xamante ni moom dem na ba génn moom moo gorewut parce que bu gore woon na ko Aly Ngouille defoon tànn ko bàyyi candidature am kon dina ko tànn te ñëpp may ma tuut may ma yeggale rek ñëpp xam nañ ni ci parti bi Aly euh, Aly Ngouille lañ doon wax bu Abdoulaye Dione Amadou Ba hmm. mais bu fekkoon ne tey jii Amadou Ba kese la président Macky Sall du ma a ñam nguur du dégg président hmm. àndul woon ak moom te aali ñëpp xam nañ ne bi muy ànd ak président Macky Sall ñi ko soxla bari na Ablaye Wade ñëwoon na Idrissa Seck ñëpp mu bàyyi ñëpp ànd moom te boobu moo nekk maire de Linguère yor mouvement gañe Habib Sy dem si yàlla sa jibuka ñoo ñëpp mu dóor leen Linguère ànd ak moom dóor leen législative dóor leen municipal kon jamono yooyu ñi ko soxla woon bari na président Macky kay moo war a na xool ci ginnaaw xool ne kii ji bu ma doon ginnaaw yàlla bu doonee dara ci ci Aly Ngouille Ndiaye la mais nga xool koo xamante ni bi kenn bëgg ko ci parti bi nga nga nga fal ko naxul kenn boppam lay nax boppam lay indil ay jafe-jafe parce que boo dee xool tey jii benn bokk yaakaar buñ fa waxee Aly Ngouille Ndiaye wax fa buñ Abdoulaye Dione wax fi booy bi kii nu mu tuddati euh, ki nu tuddi maam booy kan moo fa desati euh, kii ngi noonu génn euh, nu mu ki alma ama nag problème ah, ah maam Mbaye Niang génnee kon kan moo des benn bokk yaakaar. APR mais mais ah? nag ko génnee juste pour kii rek pour benn pion bu bu bu APR. non loolu loolu loolu li muy émission la mais man ku ma ko wax pour émission damay xuloo ak yow. parce que xam nga lan moo tax. ah Diop non non xam moo tax. xam nga lan moo tax Diop la xam nga xam nga lan moo tax xam nga lan moo tax. man nit ki man bëgguma di di xalaatal nit ki. doomu aadama. mais loolu dégg nga li nga xam ne d' xam nga dama demee ci xulóom loolu d' accord parce que xam nga dafa am loo xamante ni bii. maanaam man dama jàppal wax ju ñaaw la. wax ju ñaaw weesuwul nit na lii laa gëm. parce que nag wax dëgg yàlla jamono ji moo mel noonu. mais président Ali kañ lañ koy xam. bu ko yàlla joxee réew mi ci la ñuy xam kii ban genre nit la te sénégalais nag ñu ngi koy commencé di ko vivre bu baax a baax ñu ngi commencé xam bu dee ñu ngi dugg ci réseaux sociaux yi di ko di ko suivre après bientôt dinañ xam kan mooy président Aly Ngouille donc ñu poursuivre ah. mhm. euh, tey 14 war a analyser li nga moom mooy parrainage am mhm. tey moom Habibou gëm nga ni Aliou Ndiaye dina jàll li nga xam hmm. waaw non gëm naa ko gëm naa ko gëm naa ko parce que waxuma la ñun li ñu bàyyee ci ay parrainage moo ëpp li ñu téye parce que man boo dee xool municipal yi fii man amoon naa fii huit cent et quelques passé te ministre yii nii présidentielle yi quatre cent dix parrainage laa yóbbu fii ci commune bi li waral lool nag dama ko segg xool sama ay nit niti bopp. yaakaar na yow mi sax topp naa la ba son xool ay nit yoo xamante ni bii ay homme de parole lañ nit ñu dëggu lañ ma ma wax leen ñu jàppale ma ci parrainage bi parce que bëgguma dajale ay kayitu mbootaay yi dem yóbbu ay 2000 3000 te baaxul. te suñ président moom loolu la gëm. bu kenn dem ci benn mbootaay. di fa jël ay photocopie di ma indil. waaw te te aussi sax moom du ko dog sax mën naa ko doon benn comme ni nga ko waxee c'est-à-dire que ñi nga xam ne dañuy toog. te ñoom xam nga da nga naan rare ngay gis ñeneen ñi nekk sur le terrain mais ñoom dañoo parce que lu doon wax rek maanaam nit boo nga koy wax par exemple lu certain la mhm. d'accord waaw may mayotul ma eggale léegi léegi di sant nag parce que parrainage bu ñu ko waxee rek foo ko ma wax ci commune bi di sant euh, commune bi am na ñoo xam ne mën naa tudd seen tur am na ñoo xam ne mënumaa tudd seen tur te ay kilifa lañ fii ci commune bi jox ma seen ay parrainage woom ba seen kër ne ma am lii maa ko jàppale président Aly yi ci parrainage ñi nga xam ne ay ndombal tànk lañ jot fii ci commune bi ay responsable lañ ci commune bi kon ñooñu man mënuma leen fay ñi nga xamante ni bi tamit mën naa euh, tudd fii ci commune bi di ci tudd waa kër euh, waa quartier Baye Fall Niang Euh, di ci tudd rek ku ñuy wax aadama ak jigéen ñi nekk foofu yëpp vraiment ma di leen sant di leen gërëm jàppale nañ ma bu baax ci parrainage bi di ci tudd Mbay Buso Mbay Buso mi nekk Daaru Salaam euh, comité ànd defar Daaru Salaam vraiment ñoom daanaka parrainage Tivaouane Peulh yëpp sax ñoo ko def jox ma parrainage yu baree bari ma di leen ci sant di leen ci gërëm di ci sant nag sama waa koñ te yeneen Chelsea Demba Prophète Mamadou ak Omar Fall ñun ñëpp ñu doon wàcc ci terrain bi di wër di di di parrainer di di di di sant également ñu bare bare daal ñoo xam ne am na ñoo xam ne bu ma tuddee seen tur tey mën naa am dinañ indil jafe-jafe wala dara mais jàpp nañ ci parrainage fii ci commune bi bu baax a baax a baax a baax. démb li nga pare koy jël jox na si la. démb la. ah kii Demba Sylla la frère Ibou Sylla la. ñu ngi bàyyi waaw Aly ah. waaw fii fii fii fii boo dee dégg coow li gën a bari fii ci Tivaouane Peulh benn bokk yaakaar la mhm. waaw benn bokk yaakaar moo ëpp coow fii waaw yaakaar naa élection élec waaw d'accord foofu laa jëm foofu laa jëm xam nga coow ak code électoral bokkul coow président Aly ñu ngi ko invité woon euh, Faram Facce moo Pam ngañ ci biir waxam nee na bis bu yàlla defee ñu jàll parrainage yi dina am ay ministre de la république yu yu yu démissionné ñëw ci moom. wax na ko man tamit ma wax ni ci commune bi incha allahu rabbi ah, dina am kilifa yoo xamante ne dinañ ñëw jàppale président Aly Ngouille booy raam nag euh, kuy yoddu saqat waaw mais jàpp nañ ni benn bokk yaakaar moom mu leen di neex mu leen dina naqari jeexal nañ fii ci commune Tivaouane Peulh ñàgg mu leen di neex ak mu leen naqari bu leen neex na ñu takk seen rajo bu leen neexee ñu mu wut seen oto di di wëreelu waaye fii moom moom jeexal nañu fi. waaw d' accord les euh, relation waaw waaw relation bi ma am ak commune bi moom relation bu bien la. parce que mën naa wax ni papis daal laa te jotewuñ dara sax mais xam naa neexuma ko waaw maire monsieur le maire papis sentir naa ne bu may nuyu nu ko neex joxuma cër bi ma war a jox dëgg dëgg daal waaw d' accord joxuma cër bi ma war a jox dëgg waaw te man wax dëgg yàlla damaa ñëw ci commune am rek di ko jàppale pour bëgg mu am ndam parce que li may def lépp dama koy def ngir commune bi am ndam parce que non non dama ne xul waxuma loolu de dama ne cër bi ma war a jox dëgg joxuma ko te man dama koy jàppale rek bu ñu tasee dina ma nuyu Habib ça va ma ne ko ça mais man méritoowu ma mu may nuyoo noonu parce que man jiwuma ko loolu te maa ngi koy jàppale ci commune am na ñu mu jox cër ñoo xam ne li ma koy defal ci commune ñoo ñu defaluñ ko ko ñi ko ñi sës ci moom ñëpp xam nañ ko muy pré CC euh, Amina Dramé di Mamadou Ba Booba Sisaka Sissoko ñëpp relation bu bien laa am ak ñoom. damay jékki-jékki yëkkati sama téléphone woo kenn léeg-léeg it kenn yëkkati téléphone am woo ma ñu waxtaan lu bari moom moom du fa damay jékki-jékki mu woo ma ñu waxtaan si soo ko noonu ak keneen ak keneen des fois man ku ma ca nam dama lay woo wala ma dem sa kër sax seet si la ñu waxtaan. kon ñooñu relation bu bien laa ànd ak ñoom parce que tamit aussi ay nit ñu baax lañ politique nag moom moo demee noonu kii day aw fii kii aw fii mais du tee yéen ay bokk lépp daal. commune développé wut suba te ñii fi nekk tant que jógewuñ fi du développé lii moom maa la ko wax. conseil municipal bi yëpp dafa laaj defaraat bu baax. am na ñu bëgg a liggéey mais amuñu fitu jug liggéey am na ñu bëgg a liggéey mais amuñu moyen bu ñu liggéeyee. waaw fokk ñu toog waxtaanaat ci seen biir jël ay décision ferme yu liggéey mais na comme yàlla def na ñoom léegi ñu jeexal amul problème waaw ñu ñu. leen benn at ñëwaat ñëw ci ñëw ci ñëw ci pouvoir bi macha allah. incha allah loolu la ñuy ah, ah. ci bilan Macky Sall ngeen di basé non non président Aly Ngouille moom am na lu mu wax nee na dafa bëgg ndaw ñi yëpp ñu déglu ko parce que dafa am yéene ci Sénégal. am na loo xamante ni bii bëgg na ko defal Sénégal parce que moom waxul continuité rupture la wax rupture nag boo ko déggee mooy indiwaat leneen lu bees loo xamante ni bi amu fi woon wala boog li fi nekkoon te baaxul ñu defaraat ko parce que bu fekkee yaa ngi koy suivre ci réseaux sociaux yi wala nga di ko topp wax na ci euh, wax na ci santé bi lu baree bari injustice bi wax na ci lu baree baree bari xale yi nga xamante ni bi mooy ndongo daara yi nekk ci daara yi ci taxawaalu nee na tey jii moom bu faloo 60 milliards la ciy dugal pour daara yi ñu moderniser ko mu jaar ci yoon li français yi di am daara yi am ko ndongo daara yi mën a jóge ci mbedd mi nekk ci dund dund condition yu baax neex na tamit wax na tamit ci artisan yi parce que nee na tey jii ku école yi dàq boo ñëwee menuisier bi jël la wala mason bi jël la mhm. wala mécanicien bi jël la def ci yow loo xamante ni bii sa papa mënu koo def ci yow ki la doon jàngal école mu nit day am dem ba am defam ñu daax ko école mu dem jàngi mécanicien ñu def ci moom loo xamante ni bii waa école defuñu ko ci moom loolu tamit nee na bu ñëwee dina ci dugal xaalis bu baree baree baree bare nee bu ñëwee dina ci dugal xaalis bu bari pour moderniser dund bi xale yi moom la dund parce que euh, clandestin yi neexu ko Nicaragua bi neexu ko euh, Barça Barsax bi neexu ko te loolu yëpp li ko waral mooy Sénégal goo xam ne dafa jaxasoo man xam naa ni waaw maa ngi ñëw man xam naa ni moom nee na euh, poste yi mu occupé woon comme neex demal nga ko ko ci taabal ji lam ca war a def def na ko ca mais nekkul ne décision finale moom moo koy jël moom li am xolam bu rafet ak xalaatam bu rafet ni ko président Macky Sall nañ def lii président nag mooy xool la ka ca neex mu def ko ci mais moom bit si bii ñu wote moom bu ñëwee wax na ko nee da koy modifier wax na lim ci nar ci njàng ci njàngale bi pes bi wax na ci parce que tamit aussi euh, ñëpp xam nañu suñu mbokki nappkat yi sonn nañ suuf si nga xam ne dafa jàmbaajoo ci àdduna bi ñu jël ñu am doole yi di leen ko jox bàyyi ñu néew doole yi wax na ci bu ñuy incha allah wala titre foncier nga xam ne ñuy jóge ci àll bi yëpp di ko def yaama neex dina ci wax dina ci def lim ci war a def. bëri na daal bu ñu toppee émission bi du jeex mais soo après dinaa la envoyé nga nga xool. Mm-hmm. dëgg fa yàlla aussi li muy li muy li muy argumenté li muy développé. leer na moom xam na candidat voilà xam na candidat am quoi bokk tax yi nga xam ne moom ma di leen doole dañuy dégg benn candidat rek xam jéem a a fexe dañuy forcer connaissance comme ni gars yi comme ni ko Boye di waxee 2024 <laughs> forcer connaissance bu ñu topp <laughs> comme ni ko gars yi defee na en tout bi instant bi bu bi gën a yaatu mais comme li bëgg yàlla na ñu jàll si jàmm ak salaam yàlla dimbali ñu jàll parrainage incha waaw di di wax ne di ñaan ci yàlla d'abord yàlla dimbali ñu suñu candidat président Aly Ngouille mu jàll ci parrainage yi dans quelques heures am naa fii ak heures demi la ñu wax yàlla dimbali ko mu jàll parce que man gëm naa ne tax day jàll parce que xam na parrainage bi miin na ko te moo ko defal boppam téléphone yi moo ñu ko joxoon ñu di ci liggéey. ci liggéey bu baax kon xam na li muy def te téléphone yi bu ci nekk daanaka digg na ko cent vingt cinq mille te jaakaar naa jënd na ci lu baree baree bari kon Sénégal jaral na ko su ko neexoon day def yeneen candidat yi daf yëngal ji ma wut connaissance affaire yooyu déedéet ci yoon la koy teg boo demee suñu siège ba la fa ne ci ay parrainage nangu sax ñu waxtu ñu wax ñu wax lim bi ay stock lañ ko def laalu ko da ngay gis ku indi 3000 mu xool du ko laal fa laa koy teg. parce que waaw parce que bëggul bëggul bëggul bëggul dara. moom boo ñëwee di ko wax yenn chiffres sax ci parrainage day tiit. mais ñun ñi ko jege xam ko xam nañ li mu bëgg. sànq yaa ngi wax man su ma neexoon caravane laay def fii ci waan pël luyee dem ci kalandoo yi fii luyee fi boole ko sama ñaari oto yi ma am gis booy ñu dugg ci ba fees dellu may wër ci waan pël ñu naan aali guy bu ba tey jotee doo gis dara dama am kon dama am yàlla def ma dimbali dama maîtriser Tivaouane Peulh dama fi ñëw rek xam ko parce que dama fi ñëw dans huit mois élection municipale yi fekk ma fi si mii man maa ko def candidat liste bu mu demee man maa ko ko jox man Abibou te loolu li ko waraloon man euh, booba mënuma wotee Tivaouane pël bunt bi ma jox ko ko jamono yow fekkoon ne électeur laa fii man maay nekk candidat su ma amoon juróomi nit baax na su ma amee fukk nekk baax non yi di ñew wax dëgg yàlla man lima daan wax rek lay wax lima daan wax rek lay wax man Tivaouane Peulh rek moma ñor te comme ci présidentiel lañ nek dañuy concentré ci présidentiel yi suñ ci passé ñu xolaat ci suñu coalition du man may tànn sama bop du Aly nguy moy tànn bopam commune bi ñoy tànn sen bop parce que yaakaar naa balaa yàgg dinañ gis ay kilifa yu bari dinañ ñëw ci ci ci ci ci ci coalition bi waaw ñoo ngi xaar coalition bi ñoo ngi xaar kilifa yu bari te bu boobaa tamit kilifa yooyu bu ñu ñëwee nit ku nekk danga koy jox cëram kalaman man xam ne kii man am na kilifa yoo tey jii bu ñu ñëwoon man dama naa leen kaay ma génne sama coordinateur jox la topp ci sa ginnaaw parce que man li ma ñor mooy Aly Ngouille Gagné man loolu kese moom ma ñor bu ma amul post awma dara man amul problème. mais na Aly Ngouille gagné. non non non xam nga politique. politique lépp a baax. parce que lu nekk am na fu lay jariñee. ki baaxul mooy kiy wor kooku rek moo juru àndal ci politique. voilà. waaw mais nag euh, bu boobaa rek ñu jiima bu boobaa rek ñu jiima xool xool euh, jiima jiima sekk sekk nga xam ne bu boobaa ay sama booy bi yeeg ñëpp dañuy ñëw ci coalition bi <laughs> ñëpp dañuy ñëw non nekkul ci man mais dañ dañ nekkul ci man non nekkul ci man mais ah, non non non <laughs> parce que man jàpp naa ne tey jii nekk nañ ci dynamique boo xamante ne bii xam nga sincérité ak gu xanti deug mo am solo ki dama ko bëgg da dama ko bëgg xam nga lan moo tax dama ko bëgg dafa am jom gis nga nit xalé da ngay am jom nango liggéey am gëm-gëm ne salaamaaleykum maire woo la fii bokkal la ben 300000 300000 bo ci dundé ñaar weer mu jeex bu dé dina ko mat nga bëss say loxo han ah? xale da am gëm-gëm. kii kooku jëmukaay de. Sonko la gëm man président Aly Ngouille laa gëm. mais dañuy wooteen téléphone damay bëgg a def dara woo ko. tey jii lu nekk def naa ko. pour yóbbu ko ci Aly Ngouille barki Seydina Mohamed. lu nekk def naa ko proposé wu ko dara parce que xam naa ne du jaay ngoram. mais façon neexal bu ne façon propagande bu ne façon baab bu ne. def naa ko ah. toppali ko ah man gaw lool parce que. ah gaw ko de. <laughs> voilà daal moom. man nee naa ko daal moom bu fekkee Ali jàll na. Uh-huh. man tal naa sama loxo ñëpp ñu ñëw jàpp ci combat bi. Euh, ngi doon ah. vraiment plateau bi neex na mais il faut bi waaw di nuyu communauté waan pël bi yëpp. di ci commencé sama yaay ajaratu maam Penda

di ko ziar baax di moom mu jàmbaare lool ci parrainage yi vraiment di nuyu bépp autorité boo xamante ne bii mu ngi ci commune bi jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sama xarit euh, sama soppe Amina Dramé di nuyu président Aly Ngouille ak coalition Aly Ngouille Ndiaye 2024 bi yëpp ñu ngi leen di ziar di ñaanal suñu papa tournée boobu muy def ci Amérique yàlla may ko ci réussite bu fa jógee mi ngi war a dem Italie ak Espagne yàlla may ko jàmm ñu jàll ak jàmm ci parenage yi

man dama gëm ni kenn ku nekk ku wut baax parce que Amina Dramé yaa ngi koy gis suñu tante la pourtant ci maire bi la nekk mais day dégg lu ma wax lu jëm la nekk te xam nga donc aduna moo demee noonu kenn ku nekk gis-gis bi am dañ la cee war a encouragé mais bu ñu paree ñu xam ni am na l'essentiel bi xam ne moo ñu boole mooy ñu ñëpp ay ay donc di jox ñëpp dig daje ba suba incha allah ci yeneen mbir mi su bañ a tardé waaw di di sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan ci euh, suñu invité bi di wax ni fi mu nekk foofu la Aliou Ngouille Ndiaye moom quoi qu'on puisse dire loo dégg mukk ko waxal lu ñaaw parce que li muy yor ministère bi yëpp waxam sax ku mag kilifa la et xëy na bu ko Macky Sall jiitaloon moom dina mën a doxal benn bu ko yaakaar yàlla baax na li si li si ci kanam raw di ba di ñaan yàlla lépp coono bi bi aussi ñaan yàlla ngeen jàll comme ça élection yi Sénégalais yi mën a choisir ki neex franchement di bëggee ñëpp ñu teew si Tirac plateau bi di jox dig daje ba beneen yoon merci beaucoup. allez allez-y yow yow tey waxtaanu jeunes lañu waxtaan vraiment mu nekk waxtaan bu pertinent mais aussi bu intéressant et j'espère bu fekkee am na lu ci war a mën a jàng tamit te ñàkk ko ñaanal aussi li nga xam ne am na ko Aliou Mbuy yàlla sotti ko voilà ci loolu aussi nga xam ne ñoo may collègue nga xam ne ñoom Ousmane la Barhamie ak ñi nga xam ne de nga xam ne moom mooy Aliou Diop loolu invité di souhaité aussi joyeux anniversaire suñu animateur bi nga xam moo nekk kër gi mu di yëngu di yëngu ñun ñëpp au nom de l'équipe ñëpp ñu ngi lay souhaité joyeux anniversaire bu baax a baax frère loolu bu ci wax temps bi jeex na donc ba ma ñëwee si place de tey moom laa commencé. voilà mi ngi noonu en tout cas dëgg moom doy na anniversaire et ñu ngi yëgal lu ñu kanam bu baax a baax comme d'habitude moom dañu ñuy baal rek xam naa dañuy dañuy baal benn yoon voilà te tey matinal plus wax ñu joxante rendez-vous kon suba incha allah ma am ñaari invité yoo xam ne suba nag ay ay hip-hopeurs la la la am invité xam naa débat boobu nar naa am tamit en tout cas maa ngi kontaan ci ñëpp di leen jox dig dëgg léegi incha allah